mu delluwaat diggante bi wax xaaral ci moom yi nag fekk xaw bi am naa xalaat ba laa xalaat ci li war a jublu waaye ñu bëgg ñu bala ñu ci jublu ñu li jëm ci muur koor yi kon kenn ku nekk bàyyi xel muur koor yi moom mu ne ñaar téeméer la ñi nga xamante ne ñoo yor si yu jour yi ñoom ñoo koy laaj kon dañu génn yéen wax nañ leen imam Cheikh Mouhamadou Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadir ak Sina kon nag ne ñëpp dal ñu préparé jullit yi te waaye ko bu baax a baax a baax di leen wax ne leen nag sant nañ leen yéen nag maa ngi soññee ci muru koor yi kenn ku ci ne bàyyi ko te génne ko bala ñu julli kon loolu maa koy ñaan ñëpp di fàttali ni leen nag barab bii ñu ne muy mën a rek ñu naan xool ni mu mel ci taar entretien bi nag ñun ñii ñoo ko yor kon loolu it maa ngi koy fàttali ñëpp léegi nag imam Cheikh Mamadou Moustapha moom Sëriñ Abdoul Khadir ñëw na kon ñëpp bàyyi xel nag waxtu wi julli gi ñaari rakka They didn't juddoo ci topp yàlla ak ci baax waaye bu leen demee ci bàkkaar ak taw mu delluwaat ci jigéen ñi ne ma xalaat yi muslima wal muslima fi ibadati lasi amamika deel jax sa bu nit bi ak ci nga xam ne day rafetal ci ci jaam jaam deel jax ba war war ko def waaye ñu nga xam ne ñu àndal di liggéey ngeen rafetal liggéey bu baax a baax a baax lépp lu ci war rek ndax euh, média dafa nekk loo xam ne dafa am importance dafay wéttali nit dafay informer nit te yéen ci bu baax a baax a baax ñi ngi sant bu baax a baax a baax a baax